alhamdulilah alkarimi sinan ala istixaali bi furudin wa sunan sakartu li'annahu qad saxani liwatanin bi nafa ma'alqani waxaadani ilayhi bittaani min baadi ma sabab taxayri وجرني فيه إلى العلوم والفوز والأمل بالمحلوم ثم الصلاة بسلام كبير donc ñu ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp gannaaw ba ñu ñaanalee sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te wér ñu ñëw tey ci euh, turu Touba ca kanam ci njiitu la sëñ Abibu euh, sëñ Abdoulahat ak le président Fata di ànd commission santé ak euh, commission sociale ànd tey ñëw pour jébbal encore une fois euh, Matlaboul ni benn lot de matériel boo xam ne c'est évalué à hauteur de près de million millions euh, ñu àndil leen ko pour jàppandal seen liggéey gën a jàppandal seen liggéey gën aussi jàppale aussi population bi te it ci yaakaar ne aussi ni ñu ko andilee fii Matlaboul Fawzeyni comme ni ngeen ko daan defee rek yaakaar ne dinañ ko population bi dinañ ci jot ni ñu bëggee ñu jot ci ndax Touba ca kanam moom li tax li ko tax a jóg mooy population bi rek moo ko tax a jóg te gis nañ ne wàllu santé moom lu xaw a difficile la fi kon nu ñu mën a def rek ba jàppandal ko ba mu gën a yomb ci yéen rek daañ ko def xam leen ne kon Touba ca mu ngi ñëw encore di gën a dëgëraatal suñu coopération ak yéen gannaaw action yoo xam ne jàll na fi ñu ñëwaat encore andiwaat yeneen action te espérer waat que ne incha allah dinañ taxawaat jotaay bi jër ngeen. asalaamaaleykum euh, mbooloo mi ñoo ngi leen di sant di gërëm ci seen teewaay tey dañ fay daje ngir euh, recevoir benn don boo xam ne bii waa Touba ci kanam ñoo ko def jëmale ko ci hôpital Matlaboul Fawzeyni mu nekk don boo xam ne bii euh, ay équipement médical maanaam jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci biir service yi ñuy liggéeyee. Euh, moom moo ci nekk mu nekk euh, loo bu am solo bu takku ndaxte ci ay oto yu bari la nekk euh, lépp jëm ci biir hôpital bi kon nag ma ne woon dinaa ñëw lu mu gàtt gàtt ma yëkkate ay kàddu yu cant ak ngërëm jëmale ko ci waa Touba ci kanam di leen wax itam ci turu ñi fiy liggéeyee ci hôpital bi ak sama turu bopp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci don bi ngeen def ndaxte. lii hôpital bi soxla na ko parce que jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo saa bu ñu sañoon saa bu ñu xëyee mu gën di yokk kon nag képp koo xam ne kii da liggéey ci di yokk loolu muy tax ba ñu gën a mën a ñoŋal cet euh, faj bi ñuy faj malade yi kooku moom wax du yàlla boo ko defee danañ dañ ñoo la ameel cant goo xam ne gi am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem kon nag ci turu waa hôpital bi ak sama turu bopp ñoo ngi sant waa baax waa Touba ci kanam di ñaan sama borom leen lu kawe seen jot ci liggéey bi ñuy liggéey jërë ngeen jëf